de participe de. gestion participative gestion d'approche participative. Mhm. d'abord sur ce problème il n'y a pas eu de concertation. Mhm. amul. toutes les décisions ont été prises d'une manière unilatérale. Mhm. sans concertation avec les principaux acteurs. c'est un problème. le ministre Omar Gueye a beaucoup plus écouté Aliou Sall que les autres maires. c'est-à-dire. moom la ak Aliou Sall Omar gën indi problème yi nga gis yëpp. nañ ko indee. lui le président. oui. des maires du Sénégal. pourquoi Aliou Sall ñoom la parce que c'est politique. et toutes les mesures décisions décentralisation acte trois décentralisation bi muy ñëw c'était politique professeur. même du temps du Parti socialiste de 96 jusqu'à nos jours c'est politique. Mhm. il y avait des rivalités dans les différents au niveau du Parti socialiste. il fallait il fallait maintenant arrondir les angles il fallait maintenant que ñu gérer la clientèle politique ñu découper Dakar découper partout. c'est pourquoi en son temps il y avait ce qu'on un découpage politique et un découpage administratif am na ñoo xamante ne dañu leen découper politiquement et administrativement. c'est-à-dire te prends un exemple benn exemple bu ndaw à Rufisque c'est-à-dire à Rufisque il y trois arrondissements marché central bi nga gis Cheikh euh, Pamatal marché central xam fa la bokk mi ngi bokk ci këri suuf te këri suuf arrondissement ouest la bokk bi Alioune Mar jiite mais administrativement si bu Albé la bokk. loolu mooy lan. <laughs> cest à xaalis bi jógee foofu ci Albé la jëm mais moom mi ngi bokk ci ouest est-ce que loolu ñoom faut corriger. xam nga ça c'est des choses à corriger. Omar Gueye n'est pas au courant de ça. marché <laughs> léegi. waa primature lañ koy jox. mais c'est-à-dire moo tax il a un problème politique la ak ak administratif ba pare da ngay jël au temps du parti ñu jël quelqu'un qui habite au au au nord yóbbu ko ouest mu gérer ko ku ku habité ouest ñu yóbbu ko est pour ñu bañ a xuloo mais ñoom ñëpp ñoo bokk même parti politique. c'était comme ça que ça s'est passé à Dakar et partout. mooy mooy décentralisation bi ñu amoon. moo tax amul ci kenn ku def découpage te lanu ko ci politique amul. daluñu ko ci développement local amul. dëgg neex yàlla de. amul ci développement local ñu ngi jéem a xool nan la ñuy maintenir seen électorat. nan lañu mën a taxawee être puissant. Mm. c' est ce qu'ils cherchent. mais est ce que découpage. attends ma wala dafa toujours déterminant par rapport ak. non c'est-à-dire dafa amul découpage c'est-à-dire. comprendre. c'est-à-dire c'est déterminant tey jii. mais déterminant comment. non ça veut dire ce que je comprendre. c'est-à-dire en faisant un découpage. Mm-hmm. c'est-à-dire en quoi ce découpage territorial. Mm-hmm. aura un impact. sur l'électoral président de la République ou parce que man prend par exemple Balma Omar Faye. Mm-hmm. tey bu ñu defee découpage yow gox bi nga dëkkoon. doon fa voté dindi nañ ko boole nañ ko ci beneen gox ça pose problème c'est-à-dire par exemple sur le l'affaire Sangalkam auparavant dafa am quartier yoo xam par exemple moo gën a ngand soo gañee quartier boobu mu leer na da nga koy am soo ko déranger nga dindi ko mais da ngay mën a contrôler foofu parce que ñii dañu maîtriser cartographie électorale donc foo la foofu sax ci enlève Grand Yoff xam nga Bambilor bu ngay dégg coow ñuy dégg entre Bambilor ah ak Sangalkam kër euh, comment dirais je euh, euh, Kounoun. Uh-huh. lébu gi lébu gi Daaru Cubb foo Paaru ngay dégg noonu. xam nga Bambilor Bambilor fi ñuy wax Kër Ndiaye Lo ak Kounoun yëpp foofu la bokk. Uh-huh. c'est-à-dire cest niw bi li ci baax la ñu teggi ñëw xëpp ko amal bi mu bëgg a dolliwaat. Eh, eh. pourquoi moom Omar Gueye bu fekkee ne rek ci cadre développement local rek la jiw dublu woon pourquoi jëlul fi nga xamante ni mooy kuunuun di kër mbay di kii lu ko di kër di kër njaayloo ak cité enseignant ak yëpp boole ko def ko benn commune. ba pare Omar il est juge et parti. maire de Sangalkam ministre bi yore mbir mi. or boo jëlee fi nga xamante ni ne mooy kuunuun nga jël kër njaayloo c'est la zone la plus puissante électoralement. te c' problème entre Omar Gueye ak Ngagne parce que man dama daan taxaw di di superviser les meetings du du pouvoir. mais nag foofu Omar nekk bu nekk ah. commune soo leen boolee ça sera euh, une commune non viable.

wala nga dem mairie lool amul benn infrastructure marchande équipement marchand amu fa. il y a que des marchés Louga des marchés de mardi marché mardi c'est pourquoi c'est ce qui a ce qui a favorisé cette cantinisation dans les quartiers. waaw raison laa lay wax moo tax ma lay wan ne bañ ko defaat. waaw ma ne loolu moo tax waaw ma ne mais ñun corrigé wu leen. Euh, si on a corrigé déglul mais a pas de a pas man la wax euh, découpage bi xam nga man dama dëkk dans la zone Omar. waaw dama ne nekk maire aussi. gis nga tey par exemple soo demee Kër Massar. Hmm. côté est bi. Jaxaay. Hmm. dañuy wax commune de Parcelles Assainies Jaxaay Ñàkkurab. Hmm. mais boo xoolee Parcelles Assainies yi. li commencé unité 9 ba ci suuf lépp si Kër Massar la bokk comme parce que Dakar yi rek ni unité 1 ba unité 6 bokkee ci Aïda Sow Diawara Guédiawaay unité 7 ba cinq bokk ci Moussa Sy ci côté bi loolu moo am foofu Kër Massar toujours day am problème recette agent yi dañuy daje muy am ay conflit mhm. aujourd'hui ci découpage bi dañu ne tous les parcelles assainies ñi ngi bokk si jaxaay xam nga tey aujourd'hui découpage bi réglé na conflit foofu ëllëg lépp lu bokk parce Parcelles Assainies dañuy xam ne bokkul Kër Massar dañuy xam ne si commune bi la bokk te pourtant loolu ci kii bu découpage bu bees bi moo indi loolu. d'accord mais seulement non bàyyi ma eggali seulement dafa am lu des xam nga lan des mooy ñoom ah. am na lu ñu corriger ah. mais am na loo xam ne population bi bëgg nañ ñu corriger ko te corriger wuñ ko foofu nag la ñu soxla woon waxtaan la gestion participative xëy na suñ ko defoon su boobaa yooyu yëpp du am nit ñi danañ ko mën a solover ndax ñoom ñu xam lépp foofu. Mhm. donte c'est des techniciens xam naa ne ñooy def découpage jël carte teg ko lal wax am na loo xam ne ay doléances la yoo ne population dañ koy wax xëy na loolu munul munul ñàkk ci décopage te loolu kenn mënu ko def. par exemple tey li waa yëmbal wax de département bi warul euh, tudd Kër Massar département de yëmbal la wartu ndax yëmbal moo gën a ancien Kër Massar yooyu non. département boo gis il faut que mu porter benn nom fii amu fi benn département boo gis porté wul nom commune ba ñuy dagg moom la ñuy tuddee département bi loolu moo tax département de Pikine am département de Guédiawaye am et cetera et cetera donc kon loolu du loo xam ne mën nañ ko wax ci découpage bu nekk loo xam ne raison bu valable la pour ñu ne découpage bi baaxul mais quant nag su dee ne dañoo corriger dara am lu ñu waneen waroon corriger te corriger wuñ ko mhm. loolu dañ ko war a teg ci table bi ndax projet rek la mais yow correction ko dama leen bàyyi sa sama temps nga nga wax lu bëri xam nga monsieur le maire mhm. cette communalisation intégrée yow xam nga ne ça a été un échec oui pourquoi un échec c'est pas un échec mais yow allez allez allez allez dans les communautés rurales qui sont dans à l'intérieur du Sénégal hmm. mais lay foofu du feneen lay foofu du Kër Massar rek bien sa xam nga yaa ngi wax sa sa sa sa. mais loolu incohérence acte trois bi la nga wax yaa ngi wax sa continuité locale. Mhm. wax Rufis taxaw tey gis un bu wóor xam ne kii acte trois bi la. Kër Masar à Kër Masar où à Kër Masar. man acte 3 bi aujourd'hui m'a permis de réaliser tey des infrastructures sur la coopération décentralisée. yoo xam ne état defaluma ko. tey soo demee à l'unité 12. tey def naa fa benn infrastructure boobu xam ne sur un milliard huit cent millions avec des partenaires suuf laa joxe partenaire ñoo tabaxal ma ko télévision laa nekk te du benn boobu du ñaar am naa des partenaires saoudiens yoo xam ne defar doo demee Medina Gana Sarr nga gis fa post de santé bi ñu ma defal foofu ak classe yi ma fa defal am problème mu ndox ak malgré ces investissements en fait. waaw Medina Gana Sarr am na ñoo xamante ni ñu ngi fa dëkk depuis 2012. xam nga de la télévision. Pamata ça c'est pas pour faire son bilan. non non xam nga Pamata. man li may wax dama ko xam. Euh, Médina na Sarr waxuma ak yow de Pape Matar waxuma li nga wax Médina boobu ñuy wax euh, am na ay population yu fa nekk ñi ngi dans des conditions yoo xamante ni c'est des conditions inhumaines am na sax benn étage bu fa daanu. monsieur le maire xam na ko mais dans une indifférence totale chaque jour nit ñi ñu ngi koy romb xam nga pour wane ko ne en fait. xam nga <laughs> problème mu ah, mairie lan la. xam nga man man seen problème. mais monsieur le maire xam nga bàyyil ma ñëw foofu seen problème par rapport à l' acte 3 de la décentralisation également mënuñu wax ne que tout est rose quoi. non bien sûr. mais nag déggoo la il y a des incohérences. mais communes yi bokkuñu nit ñi bokkuñu. nit ñi leen di gérer bokkuñu. communes yi bokkuñu nit ñi leen di gérer bokkuñu. voilà ku li àllin. du ay problème mu territoire. fii la yow da ngaa dem laajte kër ma Massar peut-être ñu lay waxal. mais boo dégloo ma wax la parce que man euh, boo xoolee discours bi président ñëwee Kër Massar nga xool discours bi ma wax. am naa ko génne ko nga teg ko fii nga déglu loolu ngay wax yëpp wax naa ko déglul ma rek Medina Gana ah. Sarr boobu laa lay wax. alors li ma lay wax en fait. Euh, nee na man toog na fii pour défendre de. waaw non d'accord on est d'accord je dis la vérité. problème mu mais waaw mais la vérité tey jii mooy. vérité laa lay wax mais d'accord mais monsieur le à votre vérité. amul ndox à votre vérité amul courant. à votre vérité loolu président toog na ma wax à votre vérité j'aimerais quand même apporter quelques éclaircissements à votre des solutions yoo xam ne tey. Euh, waaw d'accord ko ciy def solution yooyu nag moom la ñuy poser ay questions. parce que nee naa Aïcha gis nga Kër Massar boo fa dugg mënoo koo xam maa koy dégg léegi mu ni ay tali. Kër Massar boo fa demee da ngay ngiroo ngiroo wax ci euh, Dakar bu nekkee seen luuf nañuy wax parce que en fait bu dul li nga xamante mooy axe <laughs> principal yi amul fenn fooy dem fekk fa te li ma lay wax ci inondation yi nii fi nga xamante amoon na ndox tey jii boo fa demee bu tawaatee dafay amaan wax parce que benn infrastructure teg li ma bëgg wax rek si recette ñoom seen problème e problème mu mairie Sénégal xam nga lan mooy tout le temps infrastructure lañ jot a def ci ci euh, Parcelles Assainies wax ma ba ban infrastructure lañ def ci fi nga xamante ni moom mooy mooy mooy mooy kii. moo tax ma ne la xamoo déglu. wax ma ah, vas-y waaw léegi déglu non non bàyyi ko mu wax léegi déglu léegi déglul xam nga Kër Massar mosul am canalisation projet de canalisation Kër dafa am ay zones yoo xam ne c'est comme Rufisque am na zone yoo xam ne ban la am na tey zone yoo xam ne boo fa bëggee dugg ak oto bu dekkul 4 x bu baax doo fa dugg. zone yëpp la presque. dégg nga c'est la grande majorité. yàlla def bi projet ñëwee Kër Massar projet 1 ñu ne nañ ko réaliser ci zone bi nga xam ne mooy zone bi nga ne moo gën a euh, euh, euh, gën a nappi fa la gën a sax jege mooy zone bi nekk wetu Mbëbës. commencé ci mairie Kër Massar dem ba ci lac Mbëbëse. boo demee ci lac Mbëbëse benn stationnement de pompage bu 7 milliards moo fa nekk. stationnement de pompage boobu mooy xëccu ndox bi di ko yóbbu ci géej gi parce que boo jaaree VDN bi. da ngay gis ne géej gi ak Kër Massar nii la géej gi dafa kowe ah, dex bi dafa ah, suufe bàyyil ma développé xam nga yow boo nanguwul déglu yow boo nanguwul déglu doo mais nag doo bàyyi nit ñi ñu dëkk foofu yow la nga bëgg a dégg yow la nga bëgg a dégg da nga may bàyyi ma ma wax avant de dëkk laa lay wax dama ne la xam nga da tudd Parcelles Assainies léegi xam nga da tudd Parcelles Assainies uh-huh. uh-huh. li commencé unité 1 uh-huh. unité 2 unité 3 ba unité 10 ci lycée bi jël Samsam jël Kër Massar village. Mhm. ba egg ci lag bi tous ces quartiers là sont canalisés. depuis quand. mais depuis projet 1 projet 1 bi jeex na. sa projet 1 moom daaw foofu amul inondation dama ne la daaw foofu amul inondation daaw fa am inondation canalisation amu fa. mooy Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque. yow xamoo Kër Massar. maa ngi ñëwaat ci yéen. Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque moo am inondation. y a deux Parcelles Assainies ak Kër Massar yow xamoo sax Kër Massar xam nga yaa ngi wax parcelle te xamoo yan parcelle. da ngay da ngay déglu ñu wax la yow boo dee xamoo dañ bu la dañ lay yónnee ay message di la pour di wax ngay koy professeur yow boo dégloo li nga xam gis nga Parcelles Assainies fële mooy problème mooy Parcelles Assainies kenn ma saa def mais ñoo ko jaay nit ñi dëkk dama bëgg dama bëgg infrastructure yi ah, foncier ba am na fa ça existe ma nga fa. dama bëgg su ma dégloo. xam nga dañoo dugg ci il faut nga déglu ma ci canalisation non man waa télé bi laa jàkkaarloo Kër Massar. waaw mais nga jàkkaarloo naa toog fii di wax lu dul dëgg. non non ñu waat Kër Massar. et eh, élection yi c'est bientôt dans quelques quelques mois. mais élection bu demee toog fii di wax lu dul dëgg. dama bëgg nga déglu ma may wax dëgg la yow li ngay wax nga ah, xamul dara te doo déglu. soo ma nanguwul déglu nag soo ma nanguwul déglu. inondation yaa ngi nii xoolal fële télé bi xoolal yow li ngay wax xamul si dara. je suis désolé désolé mais boo ma mënul déglu ma la déglu wax ma damay déglu ma ma wax la lu li am yow tamit ñu ngi doon xaar sa non da ngay wax sa xalaat mais waxoo lu am. non li am laa lay wax yow yaa waxul li am parce que yow xamoon dara li ngay wax te loolu ngay toog fii di wax loo xam ne amul. Kër Massar ah. li ngay wax nii dara amul. ma ñëw seen micro ma ñëw ci ah. professeur parce que yow rek la ñuy déglu waaw réalisation daaw c'est les parcelles. boo ñëwee tey jii am na ay aussi non non mais oui mais on revient vers vous. oui on revient vers vous ñu ngi ñëwaat ci yéen suñu ñëwaatee on vous donne la parole ku nekk doo ñëwee fii doo ma invité ba ma ñëw nga ne doo ma déglu il faut ngay déglu mais nag su question na déglu ñu eggal réponse bi nga yow dagg nga léegi yaa ngi dem feneen ci la ne je suis d'accord avec vous mais je reviens vers vous le temps que ñu calmer un peu n'est-ce pas alors ma ñëw professeur professeur ñu ngi euh, redécoupage administratif